xibaari biti réew dañ koy doree ak nga xam ne moo di Algérie ak Karim Ben Salah nag ma nga ca réew ma waaye déggul njiitu réew na way ku ma di Abdoul di koy dénk réew ma xew ma nag daal di tàmbalee nag ci aaye alxuraan ak bàkk réew ma la ñuy jàngee bataaxal boobu di xamle na nag Abdoul Karim moom yi moom la tànnaat waaye nag ku jégi nag daal gedd nag ndaje moomee di xamle ne nag niñ ko amale jaaru ñi nga xam ne ñoo di étudiants yi tamit daal di génn nag ca mbedd ma nag ca lañu nag ñi nga xam ne ñoo di way takk der yi daal di sànnee gaz lacrymogène nag ngir mën a tasaare mbooloo mi ñëpp daal dem ak nga xam ne moo di Mali gannaaw nag cong bu metti gu fa amoon ba ñu am ñu ñu bëri ñàkk ca seen bakkan nag bëri tamit ñu ca am ay gaañu gaañu nag ña nga tëdd ca lalu hôpital ya di dund seen i jafe-jafe nag donte na nag faj ma mi ngi gën di woy tamit bëri na ñoo xam ne ñu ngi ci diggante dund ak dee ñu daal di dem RDC République démocratique de Congo from bu Congo nag daal di addu jëmale ko ci kàddu yi Félix Tshisekedi jëmale ko nag ci nguur Kabila moom nag dafay xamle ne nag nguur ga fa nekkoon nag dafa daan xamle nguur ga fa nekkoon nag da daan def ngir gees réew ngir mën a doxal ay mbiram indi na fa coow lu rëy ca réew ma daal di koy daaneelee ak fi nga xam ne Rwanda ak France nag seenu diggante nag am nag déggoo nag waaye nag jaaragul yoon gannaaw nag anniversaire bu amoon ca boom bu fa amoon nag Emmanuel Macron nag tegu fa tànkam benn yoon nag donte na am na ay ndaw yu mu fa yabaloon waaye nag ci kàddu yoo xam ne yëkkati nañ ko fa nag ci ñaari réew yooyu donte nag ak déggoo amu ñaari réew yooyu ba tey ndaw des na aw xam bi loolu leen indi loon ci xibaar yi biti réew yi jërë ngeen jëf